ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne boole ci du ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien. mbokk yi beneen actualité de la semaine ku nekk xam na ne euh, dégg nañ bu baax l'arrêté du ministre de l'intérieur. ci wàllum di sudur euh, li nga xamante moom moo soxal parti bu Pastef bu ñu sukkandikoo ci euh, article ci ci loi 69 euh, autant pour moi loi 89 bi nga xam dañ ko modifié parce que c'était la loi jëm ci statut yi ak norme yi nga xam ne parti war nañ ci tënku ci ay textes ci wàllum bilan financier ci wàllum lépp lu jëm ci ay cotisations yoo xam ne dafay jóge ci bitim réew wala mu nekk ci réew mi mais jóge ci koo xam ne bé bokkul ci biir réew mi maanaam étranger la euh, ma jàpp ne le contexte est mal choisi pourquoi parce que day mel ne nguur gi Ousmane Sonko daf leen tere nelaw nit ñoo ko doon wax mais da koy gën a mel ne lu koy firndeel ma jàpp ne Antoine Félix Diome dafa commencé di euh, mel ne xëy na buñ mot dañ ko ci dugal ci yu bëri parce que Ousmane Sonko. damay wax rek pour pour je fais une analyse objective ni ñu déggee ñu wax ku ci mel ne Birame Souleye Diop mi yore lépp lu jëm ci administration parti kay yàgg nañu déposer ay rapport financier ay bilan si sëpp seeni manifestation te loolu di lu dëppoo ak taxe yi alors Ousmane Sonko demandé collecte de fonds ci ses sympathisants moo xam soit qui réside à l'étranger ou au niveau national du Sénégal mais ma jàpp ne loolu bu ñu ko naree def est-ce que parti yu bëri parti yu bëri parti yu bari laa la wax duñu leen tas dégg nañ président Macky Sall bu ñu demee VAR mu toog ci une émission de la place ni jot na ndimbal ay ñeen yoo xam ne jàppale nañ ko jot na d'ailleurs bi muy ñëw ci émission wax nee carburant bi mu yoroon bi am na ko ci jox cent mille carburant pour participer mais bu dee ci loolu rek lañ koy tënk est-ce que aay na est-ce que tamit bu dee dañoo bëgg wax ne Ousmane Sonko par exemple jot na ay koppar yoo xamante ni ci wàllum euh, subside la ak yeneen yu kenn xamul euh, ci étranger yi est-ce que am nañu vérification bi est-ce que mën nañu am baromètre bu nga xam ne xaalis bi fii la jógee loolu c'est une question qui se pose le problème qui se pose mooy ni ñu war a def mooy assainir le milieu de la politique mooy lan les parti politiques prolifération parti politiques ñu wàññi ko plus de trois cent et quelques partis dans dans un petit pays c'est anormal loolu moo jëkkul jaaduwul ma kantaan nag suuxal parti bu dee pour man de fekkente ni dëppoowut ak yoon moom Ousmane Sonko bu dee daa wàcc yoon waaw communiqué jërul génne communiqué ay ay fajar ak ay deux heures du matin na ko di suivre ñoom ñu acte dem justice xool la leen yoon may ma jàpp ne bu ñu dugg ci ay amalgame ay ay ay manipulation politique ak yooyu gis nga politique bi bu ñu ko dee assainir rek bu doon parti bu nekk pour norme yi war a tege da ko war a tege waat naa ko ci yàlla benn parti du des Sénégal parti yëpp ay seey xanaa mouvement yi des ndax amu ci benn parti yu ci bëri ci parti yi bokk yu respecté normes yi te bu ñu déggee ñu dañoo déggagul rapport Ousmane Sonko euh, ñi koy défendre bokk ñi bokk ci camp wax ku ci mel ne su Souleye génn ay ay papiers yu leer ay bilan financier bu fekkente ni ñoom noonu lañ def yeneen parti nañ génn ñu xool ko donte ñoom tamit benn côté bu ñu nangu ne diw defoon na nangam la naa ko def. parce que est-ce que diw defoon baax na démb est-ce que président Macky Sall na mu ko doon defee est-ce que dañoo war a di ko def loolu aussi dañ ko war a xoolaat mais lu ci mën di am bu ñu def manipulation politique ak instrumentaliser yenn justice yi ngir faagaagal ay mbër. Afrique il est que ñu bàyyi yenn yi sas ay seer ak xam ni ñu ko waxee ay topp ak yooyu noonu dañ ko war a éviter liggéey réew mi mu jëm kanam loolu la ñuy xaar ci les dirigeants il y a des questions ndox mi nit ñi bëgg jàng jàng bu jaar yoon. bëgg faju faju bëgg a voyager jaar yoon bu normal bañ a jaar ci géej gi hmm? bëgg am kaaraange yi sa kaaraange mat loolu lañu soxla ci ay dirigeant mais soxlañu fi ay partenaire bi fee la jaar ak kopp nangam sangam loolu amul benn pertenance amul importance daf ñuy tardeel d'accord kenn bëggul fi dirigeant yu bëri am na ñoo xam ne ay européens occidentaux yi ñoo leen di fal ñoo leen di jox ay koppar te ba tey Afrique dafay bëri te loolu dafa war a jeex man ma jàpp ne sax man humilité la benn nit génne 200 francs participe ci li doxal réewam cotisation bi dafa baax kër sax pour mu dox kii day fay ndox kii fay courant kii jënd ceeb kii jënn diwul pour man sax loolu question de d'engagement la de volonté boo xamante sax est bu nekk war na ko mën a làmboo est-ce que ban prétexte la contexte bii ban contexte bii le contexte est mal choisi pour naan ay justification ay dissolution de parti politique nañu organiser waat le milieu de la politique important. muy Tawfekh